képp ku màggal bis bi di màggal màggal gu dëggal des na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful war ki woote màggal Bamba moom amul ku dul moom nañ toppi ndigalam te fonk màggal fépp fu mbooloo daje di booloo nañ jéema booloo waxtaane màggal gàcce gënul rey nga nekk fii xëy ba bis ba doon tey ngay gan ci màggal ganaar gëléem xar nag ak bëy ak jur loo am ci jur du doy ci màggal gëléem gi bul yéem nagit jarul yéem bul xeeb ganaar ndee mu sës ci màggal loo mën a rendi rendi ko bernde màggal gi feddalil si Ahmadu Bamba kóllëre lislaam gi doxoon ci digganteem ak mboolem kilifa yu mag yi nga xam ne ñoom la seqaloon réew mi bu ñaare bi mooy euh, gëstu jeexitu si Ahmadou Bamba lii mooy yoon wi ñu def ko ay at yu bari baren ñu war a ñëw fii ci Sine Demba diggante si Ahmadou Bamba ak euh, waa Sihine muy Sine Demba buñ tuddee siin Demba ku nekk dana xam niñ doxee digganteem ak Cheikh Sidi Hadji Malick Tafsir Demba bu si moom dëkk bii mooy waajuru maam Ousmane si mi waajuru Cheikh Sidil Hadji marik te kon ku nekk xam na ne tafsir Demba tafsir Demba bu na ba tey mooy waajuru tafsir Makhtar Pend si mu meññ Serigne Mor Xaris ak Serigne Malick Bassine mi maami Serigne Mouhamadou Mbacké si mi tey kon ñu yab ñu Serigne bi délégation bii la yëkkati andi ko muy dox jéego yii. buumuk cofeel gu rëy googu doxoon Cheikh si diggante si Ahmad Bamba. ak Cheikh Sidil Hadji Malick ak Tafsir Makhtar Penda Sy moom la Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha yëkkati ngir ñu bëgg koo soññal buumu kóllëre gu màgg googu mu bër koo jaare ci turu Serigne Mouhamadul Mansour mu jaarale ko ci buntu kër gu mag gi muy Serigne Mbaye Sy Mansour muy xalif général des Tidianes buumu kóllëre googu doxoon ci diggante si Ahmad Bamba daal ak Cheikh Sidil Hadji Malick moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha ci loo Cheikh Mouhamadul Bachir ak Cheikh Abdoul Ahad ci délégation bii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mbacke si moo ko jiite ngir ñu fàttali ko buuma kóllëre googu yi. Euh, fii alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di am mbégte bu baax baax ci yoon wi ndax yaakaar naa ku ne la ku ne sangul sabtaar la bëgg te affaire bi tabaski la da ngay am yàlla am la ca des kon nit bu ne la. nañ jàngi alxuraan wala nañ defi lu baax yaakaar naa ne dalaa dugal ci cadre l'islam yàlla nañu yàlla doolee dimbale yal na leen yàlla euh, jàppale sëriñ bi sëñ sëñ Muntaxa li tax mu def lii moog yàlla rek ko xam waaye yàlla yàlla defal ko ci lu koy jortam ci barke siñ bi sëñ Mouhamadou Mbacke si ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax ñu ngi am mbégte bu baax ci sa yoon wi ñu ngi ñaan yàlla it yal la ci yàlla jàppale ci barke Mouhamed ñu ngi nuyu bu baax suñ bokk muy alaaji Cheikh Mbacke Dioré la suñ Cheikh Mbacke Dioré la tabarkàlla alhamdulilah jolof xam nañ ko wax dëgg yàlla damay wax ne bu gàmmoom ñëwee boo fekkoon ne eh, wax dëgg moom waxamoon ni ñu koy waxee su tan amoon ngor suñuy suñu mbaa eh, suñuy gubal mbaam moo ci ëpp say <laughs> wax dëgg yàlla sëndam lu fi dara xew jàmm ak xewu ca des lépp amul foo foo ay xewale gis nga ko dëkk bu mu mën a doon ak lu dëkk ruqi ruqi wax dëgg tubaarkàlla jàpp eh, jàpp eh, toogal na fi sëñ Tuubaa daal toogaay bu rafet wax dëgg yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal. ñu ngi nuyu gan ñi nga xam ne bàyyi koo nañ ci béréb bu tedd ba ñëw fii ci béréb bu tedd bii mu siin Demba na fekk fi nag suriñ fekk fi ñi nga xam ne ñooy nekk ci dëkk bi wuutu fi Sëriñ Mansour si mi nga xam ne moo fu wutu mag ñi ñuy waxe ci làmmiñam di jotti leen jottali nuyoo itam di nuyu Serigne seex Mbacke Joreel Mbacke Serigne seex Joreel Mbacke di ko sant bu baax ci taxawaayam di rafetlu itam yoon wi lool di nuyu itam Serigne Moodu mbakke si di sunu doomi baay ñu ngi koy siyaara di ko ndokkali ci yoon wu rafet wi ngeen dox ah di nuyu nag di waxee ci mag ñi nga xam ne ñoom ngeen fekk ci dëkk bi ku mel ni Baye Amady Thiam muy sunu magam jàkka di bilaal bi ak bay Abdou Kébé ak ku ñu wax Omar Seck ak mboolem ñi nga xam ne daal ñu ngi ci jotaay bi ma lim ñëpp le sama xal mooy ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu nag yéen journaliste yi di leen sant di leen gërëm seen taxawaay di leen wax ne ñëw ngeen ci dëkk boo xam ne mooy dëkk maam Demba Bouna Sy ah, yàlla dogal na gentoon na ñaari yoon ci li ñuy taarix wax wala ñett waaye ku tedd ki muy Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz moo ko dekkal indi fi rakkam bu ñuy wax Serigne Cheikh Sy. bàyyi ko jëlee ko Tamaaka ànd ak rakkam bu ñuy wax Serigne Mokhtar si ci at mi ñuy wax 1983 bi ñu ñëwee ñu ànd ak ay seen njaboot ka ci mag muy Serigne Mansour si yàlla dogal ñu wét wéttale sëñ Mansour ba yàlla indi coobareem ñu dawlu Serigne Mansour nekkee li fi yàlla na fi yàgg lool ak i rakkam ak mboolem waa dëkk bi yëpp. di leen wax ne ci 1983 ci la Baye Alaaji la Aziz si indi Serigne seex ak rakkam bi ñu génnee àddina nag Serigne Mansour moo fi nekk. dëkk bi ngeen ñëw nag maam Demba Bun na la tëdd ay maam Ousmane itam bàyyi Cheikh El Hadj Malick la tëdd maam Demba di maam yi Cheikh malik di bàyyi maam Ousmane maam Ousmane moom yore itam ah, di maam Ousmane soxna Mati Mbàkke mooy way juróom wu jigéen maam Demba mooy way juróom wu góor mel ni maam Demba Bun na nag amoon na juróomi doomi góor ci li gën siiw waaye am na ba juróom benn waaye juróomi ñoo gën a siiw am na ku ñuy wax Ahmadou si am na ku ñuy wax maam Ousmane Sy Ahmadou si ak maam Ousmane Sy ñoo bokk ndey ak baay am na ku ñuy wax maam Mokhtar Pend si ca Siin gële Siin Bamuka am na ku ñuy wax tam Abdou Khoudia kamara moo jur Seer Kodd mu jur Baay Alaaji Basiru bi ci Madina Jolof am na ku ñuy wax maam Njega Fatim si yàlla dogal na xare la doon def ci Louga yàlla dogal def naa ay xare ci ñeent fukki at añ na ci màkka mokkal na ci alquran def na ci li war def lépp ñeent yoon wi mu daanoo xare nag tëdd nag gane gane borom wuy ji boromam ba muy dem wax nañ ne nee na maa ngi dem waaye duma ñëw man njëkk a fàtti moomu nag mooy way juru Mama Diop Mama Diop jur Serigne Cheikh Kani mi jur Serigne suur si jur ma man mi wax ak mu mel ni itam moo jur ku ñuy wax maas mberle am na ñu ne am na doom waaye doom jigéen la amul doom ju góor kon mu mel ni maam Demba na amoon na juróom-benni doom yu góor am na ko ni maam Ahmadou si moo jur maam Mor Khoudia si maam Mor Khoudia si jur euh, euh, Serigne Moustapha si nga xam ne mooy war mooy way burdu bu gàmmu tiya bu burdu bi accès mu mel ni kon daal ci gàttal waxtu yi dafa gàtt te waxtu yu jot na kon ñu ngi tënk foofu rek di rafetlu seen jotaay bi di rafetlu itim ñëw gi di ñaan yàlla lii ngeen ko doxee ak ni ngeen ko sumbee yàlla na yàlla àggale ko te lépp di jàmm yàlla na ci yàlla def yiw yàlla kese itam nag fa tabaarakallaahu ñuy kontaan di nuyu Cheikh Serigne seex Jooreel bu Mbàkke bu baax comme ni ko chef du village waxee Moussa Ndiaye mbokk la mu baax ku taxawul lislam bi la ku bàyyi xel liggéeyu yàlla liggéeyal yàlla la kon ñu ngi koy jaajëfal di ko sant di rafetlu itam yoon wi du nuyu sunu mbokk mi nag muy suñ muudu Mbacke si damay dégg sa Baye Mor Binta si sama mag muy wax moom taxawaayam ak bëgg bëgg ak bëgg ak bëgg lu baaxam yoon suñ Touba loolu nag ñu ko ciy jaajëfal ndax itam maam seriñ Touba ak maam Serigne Hadj Malick benn lañ kon fu ci waay yëngu rek fa tabaarakàlla yaa ngi def lu rafet ndax ñoom ñëpp islaama leen ñor moo leen meññ kon ñu ngi jaajëfal ñëpp. di wax daal jaalana allahu jaalana allah wa iyyakum min allasina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu ulaika allasina adahum allah wa ulaika umu ulul albab assalaamu aleykum wa rahmatullah ki bernde mooy mbir mi berndeel bu ne jigéen la te bul ne daw la ak sant yàlla bawul ko am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak dawlu ban la rekk di màggal